ziar ya, ñu leen di baal baal leen yan yàlla boole jégal ñun ñëpp ñu fekkee ko at yu bëri te yàlla nangoon ñu koor yi voilà jërëjëf soxna si eh, xanaa rek mën yu suma xarit yóbbante leen ko muy Youssou Ndour eh, sama xarit la maa ngi ko bëggee woon ci yaayam nettali naa ko buuba Ndour ci taxaw bu mu taxawoon yaayam ba mu mel ni mu bëgg mu mel ko ñu laaj ko bi ko Babacar Diagne laajee def ko ni li ma gën a métti sama àdduna mooy ni sama yaay doon doxee bi yàlla dogalee mu wér looloo ma gën a neex te bu fonkee wuy juróom rek e, deselatul boromam dara e, soxna si wareefu góor ci soxna du da ngay tak ba paré mu war la ci sank rek Ahmed Aïdara ma makoy laaj ci lu waral jigéen ñi kenn takatul ñom goor ñi mané ko baat bu ñuy tuddé yomb ko indi bu jëk da ngay bëgg jigéen so ñëwé ci kër gi du ngeen dugg ci neeg so ñëwé ci kër gi ci ëtt bi ngeen di toog ñuy attaaya tok ne su loxom du jog jëm ci sa mbag sa loxo du jog jëm ci mbagam parce que du ngeen wéet su naane attaaya bay dem nga wo sa frère bi cameraman ne ko gungel mako ko mo daan gungé góor gu daan bëgg sa jigen su ngeen génné ci biti waxtaan fa tuuti boy ba paa bi dana ma may mu ne kontel ci man kontel ci man insha allah da nga am jabar amul problème ngeen waxtaan mu dem nga dem ndaw si du ngeen wéet amul teg loxo amul leneen su fekkee dëgg moo indi iran leg mu def farata su fekkee caaxaan ko indi leg mu dem yoonam lii moo waral yéex a séegi bokkul ci laaj bi dama la wis ci laaj bi ngeen jël ko bàyyi ko xel di lii ma la wax du dañ bu jigéen ñi takkoon séentir léegi caméraman yi takk jabar ah danaa yow boo takkee léeg-léeg sa ndaw si da lay lëjal waaye eh, damay liggéey coupé ko mu oowaat la nga coupé waat ko mu envoyé le message man ngay coupé dootuma la woo nga tontu ko yaa xam ngoon joon mu ne déreet seen nii kii koy takkee moom sax daa romb yomb te man lu romb yomb mu xaw turam mais ki jóg gis la ne kii de bëgg naa ko soxna soo jafee rek bu dee nitu farata la mu takk la soo yombee su dee nitu caaxaan la mu fooye la bis boo ko tuddee takk nag daa mel ni danga koo dóor ay yar mais def ma ndànk dafa am lu may toppatoo dama koo jotagul toppatoowul dara te xam nga boo dee yërndu dara ba découvrir affaire bi loo découvrir dootoo ko jox àqam non non góor bu xasee découvrir jigéen jeex na jigéen ñi nag ñoo war a dëgër takk seen ceinture ba mu dëgër léegi nga dégg sa may léegi nag ginnaaw yooyu ñu ngi fóot ñu ngi togg di indi ñu ngi lay jox cuuraay ñu ngi lay seet samedi fa ne ba deux heures yéen a ngi ànd baali li nga bëgg yëpp yaa ngi koy am bu doon ci jabar sax du mel nii kon looy takk te ki lay bëgg ragalul yàlla. xamul sax fu yàlla féete moom yàlla yàlla sax bokkul ci programme boo ko yàlla mu ne wóohoo booy moom yàlla bokkul ci xalaatam kooku bu àndeeg yow foo bëggee farata du faale mais bu doon ko xam ne sax am na tuuti ragal yàlla nga xam ne kii dana sóoraale yàlla su demee ba bëgg a tararare aaye ñëw ne ko eh lii ngay def bokkul ak li nga jàng mu def rek culture mais koo xam ne naada newul ci yuuram def lu bon sax moo ko gënal def lu baax soo dajee ko mel noonu denc du yomb léegi nag avant takk luy xew na néegu sëy waxuma dem ba ci biir de liy xew ci néegu sëy ci biti lay xewee doog dugg ci néeg yii lañ wax góor yii na ki su sa dama dindi waaw ga waaw ga concerné ku dul góor muy wa na ki su sa wat un nafaqatun kusuwatun sadaax sukkunaa yow bala ngaa dugg soxla ak Iran balaa dugg soxna juróom yii lañ ko wax. Iran na xool est-ce que yolomul olof na yoom fekk yolom la ñëw xam nga si pays bi bu affaire bi yolomoon doo ko ci mën a teg bu wis bi koy mujj gàddu yolom la kenn doo ko yoom si dit bu bàyyil ko loolu lay njëkk a vérifier sama bopp ko kenn xamal lu ma ko maa koy xamal sama bopp su boobu passé du ma takk de yëg naa ne yolom lewuma kon takk waraguma des na beneen point ndax Iran dana mën a dundal suñ ma ko may est-ce que mën naa dundal ndaw si ti sëy du benn fan du ñaari fan déedéet kaay ma nag li ci ndoxaan nekkul ci sëy de doxaan du farata sëy mooy farata e, bi élection yi jublu si benn waaye daf ma ne loo may conseillé ma ko ah sa leader bi de lu mu la loo ci lekkul ci campagne yi su paasee doo ko ca mos campagne ak ndoxaane yam lu jigéen amul ci ngoro bu sëy ba fasoo dootu ko ca man maa la ko man Iran kon bala ngaa dugg ci jigéen gis nga sax euh, caméraman yow yaa war a ne du ma dugg te aw ma lu ma dundee lu ma ko dundalee kon bi Iran xoolee ne moom yoolam lewul muy benn ne yéen est-ce que mën naa laa dundal. añ reer ndékki li war ci sa biir bi ndax mën naa ko ma ne mën naa ko parce que maa ngi liggéey te li liggéey maa ngi jaay radi maa ngi jaay glace <laughs> maa ngi jaay ndox donc mën naa ko ci ok muy benn ñu ne mën nga dundal ma ne waaw du ma takk de ñu ne des na li muy sol col gi koddaay bi ndax mën nga di ko oddu muy solu ci jamono bu jot bu laajee mu am yére mu am ko ma ne mën naa ko parce que li may liggéey mën naa ko ci dundal mën naa ko ci woot ñu ne ma doo dugg de yolom lewoo man ngaa dundal man nga woot waa can giñ la laaj dix millions lañ la laaj ndax am nga ko ma ne mën naa ko ku ma laajoon sax cent millions ci ndaw si jaral na ma ni xale yu góor yi jaral nga ma gu guux pétrole ëf taal gi mi ngi tàkk nga dee bee noonu looy dee ndaw sa ah il faut yooyu hmm? ñu ne la ndax can gi am nga ko ngeen am naa ko ñaata la ñu ne la dix millions ngeen man yemb na mooy saddaax ñaata point ngo kat Iran yolom lewul olof di wax yoom mën naa dundal mën naaw wodd can giñ ma laajit am naa ko mu des benn ira buñ la ko mayee foo ko jëme ma ne am naa kër ñu ne bismillah de mooy condition yi sëñ bi kenn remplir ko ci gaay ñu bëree ngi takk remplir ñu ko défaut bi foofu la commencé waa léegi nga may ma ndaw si ba ci biir nga naan ma léegi condition yi bul yoom yaa ko war a dundal yaa ko war a woddu yaa war a jox can ñu la ci topp ngay nga ñuy dawloo yaa ko war a dëkkal nekk amoo kër sariya ne la mbefe lii dañ ko waroon a lijjanti xabla ziwaaj balaa ñoo def dara dañ ko waroon toppatoo doo dégg lii te jéemuñu ko def bu juróom yi matee nag ñu yëkkati soxna si may la suñ lay may nag baayam bi ko jur moo koy may te lu baax li ma lay waxuma lii riir ci riir mi ci sariya nga ma laaj baayam yow mi jur kii yaa ko ko maye muy benn wa illaa nga bàyyele ma ko Iran jël naa ciru baay gi boo gisee koo ko bëgg may ko su amee kum bëgg na ñëw ci yow nga maye ko sédd naa sañ naa koo maye kon bàyyi mooy maye walla kim toxal bàyyale ko maye léegi nag am na lu xew bàyyale nga ma maye naa sëy bi yëngulu mu ne ma papa mënatumaa dem sonn naa sëy bi métti na maa mënoon maa bëggoon bëggatuma du dëkk bëgg du bañ da naan maa mënoon Menutuma, mais kenn du bëgg di bañaat kon bëgg amu foon takal baa ma dem ñi ma bëgg bari na yow bëggoo da ngaa xemmem ku bëgg da ngay selmaxa soo bëggee dëgg da ngay selmaxa su ko defee man ma maye su demee ba ne ma papa mënatuma man yow mi ma bàyyile fi ma war a teg sa doom moo gën a kawe fi ma teg sama doom bi ma jur parce que dangaa jur jox ma kon duma ko yemaleeg li ma jur sa bopp sama gën a damay takk sama ndigg dem ci ki ma ko may oo ko mu toog oo ña ñaan si woon ñu toog ma ne leen kii maa leen ko mayoon dem na ba mënatul te laa yukallifu laahu nafsan illaa wusaha yàlla neen lu waay mënul tegatuma la ko soo continuer yaa ko teg sa bopp ma bëggoon ñu dindi ñaata ngeen ma joxoon ñu ne ma joxoon nañ la dix millions ma konte ko ne leen am sëy bi dindi naa ko doom demal nga iddaw bu sa idda jeexee toogal boo gisee ko bëgg kuy ñaan baat da nga yóbbaale lañ la joxoon kuy fase da ngay perte la nga joxe woon leer na wala leeru voilà waaye ñaan baat gu àndul ak delloo mënta nekk déedéet mënatuma dama mënatul ñu ne la kon lool ti dem bàyyi mën na dindi si ki maye mën na koo dindi jëkkër mën na yeewi moom mi ñu may turbinal mën naa tas mais du ndam sëy buñ yeew ca jàkka ja lu ca yoonu tribunal xanaa jàkka ja doyatu xanaa imam ba doyatu xanaa alquran doyatu la dellul ci alquran fa baxasu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha yàlla nee bu sëy bi yëngoo man mi maye mi maye naa jóg dem ca ñama la mayoon ñu bokk toog ñu trouvé terrain d'entente waxtaan yow sa yoon ne ko ci bàyyi la nga ma tëddal nelaw danaa la ma sëkk bàyyi ci sa doom ñu ñaan si woon toog ma toog man mi may ñu waxtaan defu yi ci jëkkër ji bu ko mënee bàyyi ba téye sama doom mu wax su ko mënta bàyyi mu wax mu ne man mën naa koo bàyyi dama juum nañ ma jéggal ma ne ko demal nga seeti góor-góor fayim saakun bi maaruf alxuraan laa topp nag nii di wax de fayim saakun bi maaruf ñu ne ko téel te nga toppatoo jigéen kenn du ko toroxal gis nga boo amee soxna soo bëggee lu ne yomb la bu rayanteeg ñoom jigéen ku ko teral teraanga yomb ku ko toroxal teraanga du la yomb bu boobaa nag mu ne mën naa yor mana a ñu ne kon baax na a ci man na xel sama doom soññaat ko a ci joxante leen loxo ñu kafree lëngoo dugg seen néeg jeex na su fekkee nee na mën mënatuma ko ku góor ki moo ne mënatuma ku jigéen ki ne mayit mënatuma yàlla nee na ñu fexe na ngoro ga woon ci neex ci rafet ci kaf ci ree buñ koy dindi nañ ko dindee noonu kaf ree ah gannaaw mënatul na doon sa jigéen nga doon càmmiñam ngeen ba a réeroo jeex na ñu tekki ndànk sëy ba lii moom la alquran wax waxul ceinture waxul mbéj waxul dóor déedéet nañ ko ngoroo woon mu neex nañ ko ni teqalee mu neex ndax bu bëggaat amaatee ndaw si sawar ca mais soo ko méttitalee toroxal ko yóbbu ko turbinat dem ba mu yàgg sa rabi mbëggeel yëngal la nga delluwaat dana la du man du yow yow ni ma def ci digg ndakaaru gii du ma sëyee teg yow moo tax yàlla bëgg ànd bo rafet teqale ko bo rafet ndax bëgg àndaat bu an bëgg andat amaté day yomb est-ce que nii ma wax boko défé ak mom boko bëggaté dana la jafé ma wax la leuf nak bi sey bi dañé ki day tok ci kër jëkkëram gi ñu tass fa lay jappé idam trois règles lay tok trois règles bu gisé benn bam dok gisat gisaat benn ba mu dog benn mu mu doog a génn kër la lu tax yàlla ne nañ ko fa bàyyi juboo mën naa am na fa nekkandi man mën nga faa jaar wala keneen jaar fi ne waaw du ngeen wax ci ñaar ñi ñu waxtaan boole wàll ñu continuer durant li muy jàpp ma wax la lëf lu sénégalais dul def yaa war a dundal ndaw si yaa ko war a toppatoo yaa ko war a dëkkal ba ba idde ji jeex su iddaam jeexee nga dem mu dem ñaari jàmbur ngeen jigéen ku ko fase lala la waroon ca moom ca sëy ba moo la waraat ba ba iddaam di jeex ndax tànki que iddaam jeexul benn góor sañu koo takk te sa idda la yor lii de mooy moom la fi yàlla bàyyi bokkul ak li ngay gis di bokkul ak li xew fase pare ca ah booy ana sa ndaw sa mun ah waay booba booba laa gëj a dégg nga yoon dund boobu nag da koy fay yowmal xiyaam foo koy fayee ci sa jaamu yàlla que foofa xaalis amul dañuy tibb ci sa jaamu delloo ko ndaw si mu jeex waaw léegi lu tax jàkka ji maye tribunal maye ñu xeebaat imaam wala baay yóbbu ko tribunal kon jullit yi dañu xeeb seen àtte xeeb li ñu gëm warul demee noonu nañ ñiy denc jabar nañu xam lan mooy wareef xamal yow ne ndaw sii baayam mi la ko may sañ na koo dindi teel ko xam ba bu ko dindee doo dem tribunal mais xamaluñ la ko paa bi ne la tas naa nga naan ko loolu day yomb amoon nañ ay papier de mariage ngeen dem nga dem tribunal ndaw si dem na tas nañ ko keneen takk na ko nga dem ak say këyit tribunal ñu dem convoqué góor gi ko mujj a takk ne ko yow baa xam nga jabari jàmbur nga takk mu ne mais jëkkëram fase na ko mu ne fase kayit yi mu uutoon tribunal mu ngi nii foofu li jaadu woon mooy tribunal insister appel l'islam mooy dëkk mais waru koo xeex waru ko néewal doole bin la laajee xew nga ne ñu ne la baayam tas na ko rek bi ko ne baayam a ko tas danaan la hé du moo la ko mayoon mu ne ngeen ne ko li li diine nangu nga fas ko fa confirmer ko fii bu ko booba dindee dañ koy confirmer ñun itam loolu mooy dëgg laaw looloo yoon yow àttekat bi boo ci àndee yaa xam boo ci àndul yaa xam mais loolu mooy dëgg parce que l'islam bi mu mayee nga dugg génnewul la kon bu dindee appuyer ko parce que sëy bi dañu ut kayit pour yow nga appuyer suñ ko dindee appuyer ko maye woon waaye dañuy mujj ne waa ji dañ danga takk jabaru jàmbar tas sëy ba te góor gi fasul yéene jël ndaw si kon lu mbëgg bëgg ko mettital ko bëri na góor gu alko te jigéen ko alak bëri na ku ñu dàq fa muy liggéey jigéen a tax bëri na ku mënta jëriñoo salaire jigéen a tax bëri na koo xam ne ci tolof tolof la dëkk jigéen a ko teg parce que dafa amul orma dóor saaga xas toroxal te yàlla ne waashiruhunna bil maaruf jigéen daal ku ma gëm man yàlla toppatool ma teralal ma lii laa ci santal yow toppatoo ngay toroxal kon nekki caméraman yow li la war avancé yi la am déet mais du apprécié léegi gannaaw war na la avancé yi ba mu war la soo duggee appliqué lii mooy wareefu góor gis nga nag bu ma laaj wareefu jigéen lu tax su góor defee lii jigéen aw yoon su góor wàccee yoon jigéen du xam fu mu jëm wala tudaaruhunna li tudayiqu alayhinna na ne ni jigéen kenn du ko lom kenn du ko bundu xataan na ko tàkk jabar dundal woddu can gi mat ko waaye am na waaye ndeyi ku góor ci taxaw ci xëturu jabar ci sëy yu bëri meer ya ko tas jonkoon ci xolu xale bu jigéen di ko fitnaal di ko méttital bu toggee doo lekk bu bu fóotee nga setul lu la neex nga wax ko loolu bu dee lool la sëy yu bëri yëngutu yaayi la yii njëkkee la ñu xaw ma nga wujju peccorgo xaw ma fu peccorgo peccorgo waaw pëccër goo moomu ma pëccëxe lépp waaw yow sa jabaru sa jabaru mag def ko mag ma wax la leen man sama frère Ousmane Keeba bi mu gaañu bàyyi na awa saw bàyyi aminta aminta ngi seyti suma su ma masee seet mook jabaram ci suuf laay toog jabar ji toog ci kaw musuma suma ak jabaram lal sama mag bi bukan ndey ak baay musuma jabaram ci kawlal lal déglu Kamu la xam nga musuma jabaram ci kawlal mu gañu suñu pap bu ndaw ne ma ba xam nga ne ñom ñep ya leen di tak ti bo man awma jabar numa ko yore mané ko tak ñal mune ma sa jabaru magi mané ko nono papa Ki musuma toogandoo ñom ci kawlal ndax japp naa ne sumay sumay mag lañu ndax samay jabaru mag lañu musuma awa saw dana ko seetaan mu ngi Dakar amintaa ngi tiwaawoon di fa sëy foofu lay sëy benn doom la sama mag am ak moom muy awa biñ koy maye daf ma oo maa ko maye ci daara ma ni ko ku mas sa toog ak jabaru magam ci lal naka lay takkee jabaru magam ma ni suma jabaru mag mu daan seq ak moom ma ci lalam séq ak jàmm ma ne ko sama deret àtt na ko du ko def mu wax ma bañ ñene na leen takk yow sa mag takk jabar mais def ko mag sa doom takk jabar def ko doom sa frère takk jabar def ko soxna waaye noonu meer bi dey compolo peccor go yi di paccax paccaxi ci kër gi peccor guy jaar fe xale yu goor gu yambar na nga gis mu ne ci am ay dañ ko defante ak mom bam saf yow lay defante sa jabaru mag dang ko wara defal bamu saf di may wan ko ni ñun sunu jabaru mag nga sey lolo ko metil participant yi ñoo yàq affaire parce que ni ñu participer baxul dañu japp ne jamu dugus ci kër gi or que teraanga moo dugg si kër gi ndax jigéen ndabu teraanga la koo xam ne biñ la koy may mën naa togg mën a fóot mën a bale mën a lal mën a lalli mën a repassé man lépp daagu yaay xañ ko boppam bàyyi xañ ko boppam ñu jox la ko soo goree tuuti baa nga am connexion am na góor ñoo am ñu connexion connecté wuñu seen yuur yi mbalaxul amuñu da ngaa defi téléphone bi rek am connexion da nga war di connecté wu saa itam caméraman waa kër gi nañu connecté wu xam ne kii doomu jàmbur la est-ce que sunu doom bu sëyoon feneen danañ bëgg ñu méttital ko ñu xam ne ñoom am nañ connexion ñu ngi connecté wu affaire yaa ngi dox mais non non duñ ko def te ku xamul fusa doom di mujj bu la doomu jàmbur ganee see téye ko loolu nit donc sëy yi waree fii avant la dañoo bàyyi ba ci biir ñu ne caméraman dund mu ne waaye yow mais mënoon ngeen ma ko peer yi itam man lu ma ndekkee sax aw ma ko ne ko koddaay mu ne luy loolu can mu ne luy loolu foo koy dugal mu ne maire am na kër boo ko dugalee sa kër yaay mu tas sa yaay am na fula parce que moom moom këram luyeel ko fu mu dëkk baa boo amee kër nga dugal ko jigéen balaa yaatu bu jëlee leketam da koy sànni ci ëtt bi fu ko neex loolu mooy sama kër jëkkër waaye leket boo ko ne dijj nii dijj loolu mooy fii laa war a yem soo ko sànnee mu ne war mooy sañ-sañ bi amul frontière booboo neex jigéen waaye takk jabar sa baay yoral la ko di ko dundal sa yaay di ko jox lu muy sol can nga sa baay ko jox sa kër baay la dëkk yow waroo ut jabar yow yëmbar dëgg nga yow mi looy doyee jabar mais doo jur góor pour nga jur góor il faut nga am jom loolu mooy avancé ñu ne na góor gi bu dajale yooyu na jom am ngor am diine am ah sama jëkkër am na diine ana mu day julli ana mu may ko day ndogu ana mu day waaj màkk ana mu day bind day génne asaka ji voilà yooyu dañuy topp ñu ne kon góor gu am diine la anamu mu nga ci liggéey kaayam ba anamu wàcc na daa sonn kon joma nga fa nga wut ko am ngor gis nga sëñ bi kii lii deret ak am solo bari na ko amul lu muy rus deret jee paan deret ju paan baaxul moo tax mag ñi di bañ a may yenn xeeti nit ñi seen doom parce que nit bu rusul amul kersa di xaawee ko loo koy mayee doom xale yi bëgg contre mag ñi naan fu ko tu du waxi dof yooyu mais jikko ju rafetul ku koy may borom jikko ju rafet sa doom tàggat nga ko yar nga ko noo koy mayee dof mais kii dafa am solo moo tax ñu ne na am ngor deret di giir borom doo def luñ lay yabee te doo bëgg la yab ndax sa deret du ko nangu ñu ne la na daje ba pare kon donc sëy yi su jom amee diine am ngor am lépp yomb diine amul ko amul diine lu ko neex def ku amul ngor du rus dara ku amul jom du jomb dara kon soxna si yooyu mooy waree fu góor balaa takk jabar